Assalamualaikum warahmatullah. bon ma ngi nuyu mbooloo mi fi teew yeb kenn ku ci nek ci turam ak santam di nuyu groupe de presse fi ñew yeb ñu ngi leen di jox cër di leen wacce seen way di leen gëreumaat benen yoon di wax ne rek euh, dañuy joytu man Ousmane bala tuddu ñu mooy wax khadim ci dëkk bi euh, yag na fi nak wax dëgg yalla ma ngi fi ñew bo xolé en 2010 waaw terrain bi ñu taxaw ni moo ñu fi indi bo xolé espace bi yeb Nous avons 50 hectares Nous ñu présenté mais biñ ñukoy présenté Nous avons une extension la bon extension bobu problème mais ce indi wuñu fi ci problème yoy liñu indi bon ni nga xamné non lañ ko injustice bi nga xamné problème. fi am ñu né ci maire la Papis Diop ñuy adressé parole ci mom bu qui baax tamit bëgg tamit mu ñëw wax ci li nga mm, certaines personnes

Kër Bala mooy dëkk bi ëpp population ci gox bi donc 4 hectares warut euh, waru euh, warut warut nekkul yoon pour waa Kër Bala di ko am benn ñaareel ba fii ngay gis kër goo xam ne da nga fay dugg fekk fa ñu jox leen 5 parcelles ñii 10 parcelle danga dugg kër doo fa fekk dara te station am nañ yaakaar ne procédure yi station laaj warul doxe noonu station dafa am yoon bu mu war a teg lépp lu muy dox tamit commission tegu ci commission boo xam ne population bi ñoo ko tànn ñu jiital leen pour ñu doxal ñu loolu mais loolu yeb gisuñ ko fi mosuñ ñu wo ensemble général mosuñ ñu wo réunion même délégué yi nga xamante ni ñom ñoy ñooy affaire bi sax mosuñ leen won wo dañoo dem ba benn moment rek ñu xamné seen intérêt fa la un ñu djublu ci loolu ñu ñi nga ni ñom la ñom ñoo poursuivre dossier donc ñun dañ koy ñaawlu di woo nag képp ko nous euh, am nga gens, ci réew mi muy Macky Sall ci muy président de la république ñu ñu la ci ki nga xamante ne mom fii ci gox bi di wax nag sunu maire na ñëw wax ci lii balaa muy jaxase dëkk bi balaa tamit mu fi indi yeneen conflit parce que am na loo xamante ne ni dëkk bi fu mu toll nii ñun mënatuñ koo dund dëkk bi jaxasoo na ci problème mu suuf donc am na loo xamante ne ni bu fekkee mu ngi fi ñun loolu dañ koy xeex ba xëy dee ah dañ koy xeex ba xëy dee injustice moo fi am bugguñu ko bugguñu ko loolu lañu amaan pour waxaat encore une fois di leen wax ne suuf si ñu nekk nii boo xoolee lii yëpp ci site la bokk nee nañ séddale nañ ko ci façon boo xamante ne nii ñun ànduñu ci ànduñu ci tey ànduñu ci suba boo xoolee jeunesse bi nekk Kër Bala yëpp liñ am motul trente parcelles loolu jaarul yoon. suuf si famille Baye Bala ñoo ko moom famille Baye Bala ñoom moomoon suuf si ñoom ñu ñi nga fiy gis yëpp ñoo leen daggal te ñoo ñëpp dañ leen mayoon biñ fiy ñëw mooy jamono bi nga xamante ne nii Cap Vert bu dafa am ndox mbënn mi am paa bi woote na ñëw leen damay maye ñëpp ñu yow ñu mu ñu ñu dëkk biñ demee ba benn moment. ñoom ñu ne dañoo soxla lu yokk su lu yokk dëkkuwaay bi moo indi problème mu bi biñ koy wax sax ñoom ci seen waa ñoom waa Kër Baye Balla ci boppam ànduñ ci woon parce que ñoom dañ ne woon seen suufu dëkk nañ leen ko bàyyee ñu may ko ñu ñu koy may ñi nga xam ne dañ ciy am benn tuuti weccet ñu am ko ci muy doomam yi. yaa ngi dëgg mais ay nit ñoo jógee fële ay mbokk lañ sax sul moo la mun a wax ñoo jogee fële ñëw bokk ak ñoom wax euh, jëf-jëf joo xam ne indi ay kayit yoo xam ne ñun amu ci benn preuve. Il ci benn preuve ne kayit yi la wala station bi état moko joxé vraiment wa ci maye bi amon na parce que kuñ fi may wala ñu jaay la wala nga joxé benn ñu jaay la da ngay dañ lay acte acte de section de peine bo xamante ni mooy de ne ku dëkk ci dëkk bi mo la ko jox soko yobbo soko au niveau du commune ñom li ñuy a def dañuy déplacer sen zomètre commune bi mu ñëw def level espace bi nga am plan plan bobu nga dépôt bi yëpp cent cinquante la doon doon yaa ngi dégg wax ji nga jël plan boobu déposé ko ñu defaral la notification notification boobu pourtant espace yi ñu maasee la yëpp notification maire mu ngi ci signature maire mi ngi ci yoo xam ne moom moo ko signé ñi te dañoo fay xaalis léegi nag ñu fay ba pare ñu ñëw nga signé leen kayit wala léegi wala ba teg waat jël kayit boobu nga nga maasale foofu nga ne leen loolu baaxut. dañ ne kayit boobu existé tul. nañ kayit boobu existé tul. indi leen yeneen ñu indil ñu yeneen kayit yoo xamante ne nii ay ay nanañ nanañ nanañ xamu notification la ba tey mais certaines ñu ngi wax naan bàyyi na notification yi léegi délibération lay lay defar mais lépp moom la. li ñu bëgg mooy ñu ñu arrêté ñu arrêté séddale bi ñuy def ñu ñu dindi li nga xam ne moom moo fi ne ñu toog ñu concerté wu ñu waxtaan. bu trouver une terrain d'entente boo xam ne lépp dina jaar yoon fii ku fi mënti indi këyit pour signer ko bañ na ko ba conseil yi fiy jëlee këyit di yóbbu dañ la naan cent cinquante mille la këyit bi yaa ngi dégg wax ji man fay naa fi ay kayit yoo xamante ne nii dañ ko yóbbu tey ay nit ñu fi ñëwoon jënd fi parcelle ñu jox ma seen fay ma jox leen ma jox ko ay nit ñu yóbbu ko euh, ci mairie bi ñu defal leen ay notification yoo xam ne dañ koy fay moom bu fekkee si ñëw ko kooku na na na xool na xool entourage am kon parce que ñun munuñu munuñ sàcc munuñ est-ce que ne signature maire te liñ ñu indil sa dafay wane ne maire moo ko signé que signature yaa ngi fi am nay ay papiers yoo xamante ne ni ñu ngi fi bu ñu wàccee ñu won leen ko. yor nañ ko mu ngi fi bu ñu wàccee léegi ci suuf ñu won leen ko am na ay notification yoo xamante ne ni mu ngi fi moom eh, signature am lañ ci gis donc loolu nag moo ci ne te biñ ko defee dañoo ñëw fekk fii benn doomu dëkk bi ñu ne moom mooy topp suuf si di ko jaay jàpp ko tëj ko ci kaso bi. boobu ba tey jii waxuñ ci dara te lañ ko tëjee woon nangu nañ ko ma terrassé ko commencé di ko séddale bu fekkee loolu am na nañ ko dindi nañ ko ubbi mu génn comme ñoom bu dee looloo taxoon ñu tëj ko mais am na maguy am na lu ne ci biir loolu ne ci biir nag lañ bëgg état ñëw wax ci loolu sinon ñeneen dinañ fa tëddiwaat loolu moom ça me sûr et parce que taxaw nañ pour loolu sinon ñeneen dinañ tëddiwaat kaso ba parce que jaral nañu jaral nañu lu nekk waaw jaral nañu lu ne fi mu toll nii. maa ngi leen di wax sànq tam ci biir séddale bi ñu ko séddalee. Je vous le euh, euh, conseil est de 26 parcelles sur, 2, sur 4 hectares. Sur 2 hectares. conseil est de 26 parcelles. Délégué de quartier, 4 délégués, qui nous connaît comme 6 parcelles. Ce qui est le plus important, c'est de faire la population de l'Ingen Figis, qui est le plus important. Voilà, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Bon, nous avons dit que certains euh, euh Moussé Sane, moom moo ko initié et dossiers yëpp moom moo ci nekk di topp di dox wax nañ ci waxati ci waxati ci waxati ci am na fi benn moment boo xam ne convoqué nañ ñu au niveau du gendarmerie man ak booy bi ñu booy bi ñu yóbbu kaso tey yaa ngi dégg wax ji ñu ñu ñu laaj yan këyit lañ fa am ak nangam ñu indi benn délibération wan leen ko bi ma xam ne moom la booy bi waxoon ne moom la fi am délibération boobu bi ñu leen ko wanee dañ na baaxul parce que def nañ enquête yi usage de faux la. d'accord accord usage de faux mais bu démé ba usage de faux bobu ñu nangu ko ñu jof ñom ñi nga xamante ni moy dëgg dëgg bobu nañ ko tek ci yoon mom du seetaan ay victimes ñu mel nii ñu ngi fi di xex ñu nga xamné liggéey nañ 2 ans ñi 3 ans ñi 4 ans ñoo def ko ci benn parcelle ba commencé tabax xolal liñ fi toj yépp ya nga dégg wax ji mom warul seetaan loolu bu dé mom liñ ko waxal amna ñu né may nañ ko fi 2 hectares 2 hectares am yoy war na ko jël mu delloowaat ko population bi ndax loolu la ñuy jëriñoo pour ñu la parce que parce que ñun parce que ñun amna benn affaire am nañ fi am nañ fi problème mu marché amuñu marché amuñu espace foyer amuñu terrain football amuñu amuñu lycée bu baax même lycée sax amuñu ko cimetière yu baax amu fi bon àll bi hôpital amuñ ko àll bi yëpp nekk fii àll bi yëpp nekk fii ñu bëgg koo jël séddoo ko ci yaa ma neex maa la neex ba dégg naa instant yi commencé nañ ñii di waxaale ñii di jënd ñii di jaay ah fuñ ko teg fuñ ko teg loolu teguñ ko fen na état ñëw wax ak ñun dimbale ñu ngir yàlla ci li nga xamante ne nii ñu ngi koy wax yaa ngi dégg wax ji ñu dimbale ñu tamit station bi nga xam ne nee nañ station la ñu séddale ko d'une manière boo xam ne dinañ ci ay espace vert dinañ ci am ay hôpital dinañ ci am ay marché dinañ ci ay foyer des jeunes dinañ ci am li nga xamante ne nii dëkk da koy laaj parce que dëkk bi day màgg te dañ koy soxla. wasalaamaaleykum wa rahmatullah. maa ngi nuyu presse bi fi teew yëpp man Pape Sow laa tudd euh, bokk ci victime yi nga xam ne amoon nañ fi ay terrain ñun dañ fi duggoon bo en tant que jëndkatu suuf biñ ñëwee bon ñu présenté ñu kiy jaay suuf si euh, muy Babacar bi mu jaay ñu bi ñu jaayee acte la ñu defal comprendre nga euh, ñu dem mairie bi ñu demee mairie mairie boole ñoo ak bi bi ñuy indee fii bon pour bu level ñu terrain bu nekk ñu fay euh, vingt cinq mille bi ñu yeggee pour ñu enregistrer dossier bi ñu fay vingt cinq mille bu kayit bi génnee notification bu génnee nga fay cent mille franc boo ko xoolee notification bu nekk cent mille la lay cent cinquante mille la lay dikkee bon noonu la amee terrain yi mais bi ñu demee boo di vérifier ba ba un bon jour ñu gis mairie def délégation ñëw fii ci site bi ñoom dañuy buddi borne parce que site ki ko doon jaay moomu ko. bon man jot naa deewoo ak ñoom sax parce que dama leen ne ku laal samay borne dinañ deewoo parce que nag man mënu ma jënd terrain dem mairie ñu nangul ma ne terrain bi baax na ki ko moom ki wala ko jaay moo ko moom moom site bi retourné waat mairie ñëw taxawaat ne dañuy buddi noti dañuy buddi kii borno yi. comprendre ma laaj maire ne ah, man kat dañ ma defal la ay notification mu ne moom signé wul notification yi man vérifié naa notification ñetti façon notification la benn bi maire ko beneen bi ba day euh, kenn ku sàcc signature la beneen bi lu ñu scanné te ay agence su mairie parce que man woowu ma kenn maa dem ba biir bureau biir mairie fekk leen seen i bureau ku ci nekk ma waxaale yow nga defaral ma retourné waat maire nee na gisul signature yëgul tinul li njëkk a def moom mooy képp koo xam ne laaloo nga ci notification yooyu porté nañ plainte comprends beneen bi moom mooy ñun suñuy teenee xana ñu faatu mais duñu ñu bàyyi te jotuñu suñuy teene comprendre nga li nak bo dañuy yeglu ni rek dañuy yeglu ni rek waaw parce que nak bëgg nañ euh, ñëpp en commençant par monsieur le maire comprendre nga parce que nak yëg na problème bi avant ñuy yëngu wax nañ ko ko wo nañ ko wax nak ñoo mom fim mu toll nag wax ak mom wuy wuñu fim mu toll nii euh, président de la république lañuy lañuy lañuy lañuy lancer appel ne ko nag bu jugul ci li dana démé nenen parce que man mi wax ak yow bañu ci ba faatu parce que nag samay terrain maa ko moom maa liggéey sama xaalis kenn mayu ma ko dama kaa jënd aussi mënuñoo retourné waat maasale waat site bi nga ñëwaat gisaat fi leneen loo xam ne ay nit ñu jël ay vingt six terrain di leen jox ay victime nekk fii man loolu du ma ko nangu bu fekkoon sax bi ñu maasalee dañ ko jaarale yoon sax di ne ah fii de yoon a fi jaar mais da ngay comprendre ne carrément ku ma am ndey ak ku ma amul ndey la moo tax man ba ba may dee du bàyyi te jaral nañu fii tëdd ci site bi

kon mom nangulon nañu babakar mom mom fi comprends nga euh ñu dem ñom ñu nangul ñu defal ñu ay keuyit ci 150000 retourner wat mer ne gisul keuyit signé wul keuyit té ñu wax ko ne ko diw ak diw moko defar mu neutre ba tay ji ñuy wax yow adduwul deful dara ñun nak ñun en tant que victime paré nañ pour dé pour jotat suñu alal bañu ci dara man ma ngi tudd Ablaye Ba doomu bay Bala nek délégué quartier bu nab ñun papier dafa ñew fi maasale suufu dekkay ba mu maasle suufu dëkk yi dem fa ñu ne ko Papis li ngay def ah soo moywul jin jur dina jur coow mu ne ah du jur coow dinaa ko defar bi mu jekk dinaa waxtaan ak yéen bi mu jekk waaye nag finalement li li ñu ragaloon mu loolu moo am parce que dafa ñëw féete benn dëkk jël jëm jël jël station bi jokk leen seddale seddale seddale station bi seet na ci ay nitam yoxte ne ñoom ñoom ñoom mu may leen ñaari hectare te dëkkuñu fi ñii benn hectare te am nañu nekk ci dëkk bi moom suuf si ñun ñii ñoo moom suuf si ba ñu koy yi ñun woowuñu ba ñu koy redd woowuñu te ñun loolu dañu ne du yoon parce que station bi dañoo war a xam li fa nekk lépp li fa nekk loo xam ne bi moo ko war a war a saytu parce que station dëkk moo koy saytu ñi ko tegee baaxul ña juróomi nit waruñu ñëw yor alalu dëkk bi di ci def lu leen nekk loolu nag moo tax ñu ne loolu li papis na ñëw fii mu rectifier li mu li mu def parce que du du dëgg du yoon mbaa su ko rectifiewul ñun bañu ñu ci lu mu ci bañul bañu ñu ko ci mhm. parce que mënuñu jël ku dëkk Dakar mbaa ku dëkk Ziguinchor nga may ko ñaari hectare ku dëkk Bonaba gi nekk euh, père de famille yorul benn amul amul benn pàkk terrain dix sur quinze maa ngi koo nekk benn dañu koy wax ne moom na dégg suñu baat li li jëkk mu ñëw ñun nangul nañ ko mu ñëw ñu waxtaan mais su ko jëful dun suñu plan d'action bu soobee yàlla moom dina ko yëg yéen ji journaliste yi di ngeen xam ne lii ñun li ñu fas yéene def di ñu ko def parce que Oumar Gueye ñëwoon na fi waxoon nañu ko ko Oumar Gueye moo mii nekk ministère ñëwoon na fi ba mu yëgee ne loolu am na moom dafa retiré wu mu ne lii du ma ci dugg parce que du ma nekk ay nit ñu nekk ci seen jàmm di leen fi indil fitna parce que ñëw nekk di ko def loolu duñu ko ko nangul